pour le prix du meilleur management sportif africain qui vous a été décerné à Kigali. Monsieur le ministre, pour le stade de Bambay, vous avez tenu promesse. Le département de Bambay, reconnaissant, vous remercie par ma voix et vous prie de transmettre à Monsieur le Président de la République l'expression de sa gratitude. Monsieur le ministre, il y a toutefois un manque criard de d'infrastructures sportives présentement. La situation est d'autant plus alarmante que dans tout le département de Dakar, il n'y a pas une seule infrastructure capable d'abriter une compétition internationale. La réfection du stade Léopold Sédar Senghor, prévue cette année, n'a pas encore semble t pour cause de COVID-19. le stade Demba Diop, fermé depuis 2017, est transféré à la Fédération sénégalaise de football pour être érigé en stade fédéral, n'a toujours pas reçu un seul coup de pioche. Ce qui oblige nos Lions à se rabattre au stade Ladior de Thiès, dont l'état de la pelouse et la dimension ne sont vraiment pas dignes de la réputation de notre équipe nationale et de ses ambitions. Monsieur le ministre, Étant donné que ces stades sont loués à chaque fois qu'ils abritent une manifestation, on aimerait savoir où est passé l'argent de la location qui est normalement destiné à leur entretien. Euh, par ailleurs, Monsieur le ministre, je suis beaucoup peiné par le sort de, euh, des sportifs retraités. Beaucoup d'entre eux traversent des moments très difficiles, ne peuvent même pas se soigner quand ils tombent malades et vivent dans le plus grand dénuement après avoir raccroché. Même s'il s'agit de profession libérales, Monsieur le ministre, nous vous connaissons, nous connaissons votre humanisme. L'État quand même doit les, pouvoir les organiser, les accompagner pour leur permettre d'avoir une retraite tranquille. Monsieur le ministre, enfin, le président de la Fédération sénégalaise de football est candidat à la présidence de la CAF. Au-delà du soutien qu'il peut attendre des influenceurs et particulièrement du comité national de soutien qui sera mis en place certainement Est-ce que l'État, en particulier le président de la République qui l'a déjà reçu, compte actionner la diplomatie sportive en saisissant les pays amis pour le triomphe de cette candidature qui est très importante pour notre pays et par la même occasion monsieur le ministre ñuy ñaanaale aussi euh, yàlla def tam ñu ñu ñu coupe d'Afrique bi te yaakaar nañ ko ak yow biñ la félicité ba pare ñun sa reconduction bettuñu wax dëgg yàlla du lu du liñ la xam nag te président bi moo tax ñu xam la parce que ñun dañu amoon suñu candidat ONCAV moo ñu convoqué ñun ak ministre bi fi nekkoon ni ñu sama candidat mooy maxtaar Ba bàyyi leen seen candidat te bu leen ko dimbaleeti jàppale leen maxtaar Ba moom laa leen di wax toujours nee naa leen en réalité euh, dafa am ñoo xam ne dañuy àgg ak président ba xam ñan la président amanteeloon parce que yéen da ngeen a ñor taab bi bokkul ak ñi nga xam ne nga sëmlee leen indaale loolu nag waxtu wu amee rek daf ñuy am dañuy am plaisir ca nañ la xamee woon te changé woo di la yéene lu nekk di la ñaanal yàlla reconduction bi yàlla na la jikk on cheval on on change pas un cheval qui gagne donc ñu ngi xalaat ne performance yi nga commencé bu ñu continuer di la soutenir ba pare nag damay wax ni Covid bi dafa dajale Sénégalais yëpp mais yow yaa daan dajale Sénégalais bi parce que boo ñëwee fii toujours opposition amul ñëpp jàmm lañ la yéene ñëpp dañuy voté sa budget ñëpp dañuy ñaan yàlla continuer ak yow ñaan yàlla di indi coupe ñaan yàlla di gagné parce que football a mel noonu c'est magique day dajale ñëpp te comme ñun football bi wax dëgg yàlla mooy suñu nattu nañ la wutal infrastructure yu baax monsieur le ministre des finances su ko defee nag wax dëgg yàlla je n'ai rien contre nitu Thiès waaye nag waa Thiès wax dëgg yàlla euh, compétition yi ñuy abrité Euh, nañ ko bàyyi Dakar parce que dakaar aussi am na ñoo xam ne mën nañ dox seetaani football mais mënuñoo voyager pour seetaani football donc ñu ngi lay ñu ngi lay encourager euh, di la fàttali li nga xam ne moom lañ la daan wax euh, gannaaw bi ñu la gërëmee ci stade Bambey bi ndax ay voisins lañu Bambey dara ump la fa ak nga fa daan ñëw ak président d'abord ensuite ngay ñëw ñu nekk ay voisins donc defe naa stade boobu ñun def nañ li ñu mën bi ñu nekkee maire def nañ fa ay projecteurs. mais même projecteur yooyu comme ni ñu la wax ci euh, euh, kii collectivité yi même projecteur yooyu il a fallu ñu am contrat ADEM door ko je vous remercie madame la présidente la parole est